what up guys what up guys what's up everybody sama guy <laughs> before going further allow me to introduce myself again ango wadane mo xamala and I'm from Senegal West Africa Rio City dëkku Mankumba Lamba town yedi <laughs> ko may Pape Dieye Ibrahima Ndaw Moustapha Mané da good from Belgium Aboubacar Diallo from Roche his elder Ismaël Diallo di ko may Amadou Dame Diagne sama chéri Koumba di ko may euh, Mamadou Fall ak euh, jabaram Koumba Baye Fall di ko may Omar Fall ñaaw sikkim borom Kébé Moudaay di jaare waa Kébé Moudaay yëpp waa Kébé Moudaay j'espère que yeewu ngeen askan bi yeewu ngeen seen bopp waaw affaire bi de moom macha allah quoi non lii lii lii lii non non grave parce que boo ma xoolee non balaa ma ñëw sama sama si si si affaire politique bi damay wax sama sponsor officiel muy jim 77 515 15 16 77 515 15 16 voilà balaa may dugg sama vif du sujet muy maanaam tey jii sorti Macky Sall ci affaire góor jigéen bi damay wax tuuti si affaire politique bi quoi parce que vraiment affaire bi affaire bi dafa mel ni non affaire bi dafa mel ni am na baatin de affaire bi dafa mel ni yàlla main divine de non parce que boo xoolee parti au pouvoir bi. xamoon nañ ne ñoom gars yi ñoom Barth ak Sonko nañ am dara mais sóoruñu woon ne dinañ amee nii Sonko ak Barth ak ñun ñi nga xamante ne les patriotes xamoon nañ ne élection nañ am dara waaye nag vraiment euh, li ñu am weesu na suñu njot mhm. ñoom seen defet bi fi ñu ko sóoroon weesu na seen njot waaye ñun suñu victoire tam fi ñu ko weesu na suñu njot gën na kawe suñu njot quoi sérieusement parler parce que vraiment euh, Euh, peuple sénégalais bi vraiment war nañ ne daal maanaam euh, fii kenn moomul kenn quoi te lépp doo ko teg ay sondage doo ko teg ay kii quoi tu vois parfois tamit euh, te yàlla am dara mais comme nii nii massacre bi total bi fépp non li yàlla teg na loxoom quoi te ni ñu naan nag après bi kii nii mais man yàlla amee divine loxo yàlla dafa ànd ci lii parce que dafa barkeel parce que gëmoon naa ni mën nañ am Dakar mën nañ am Ziguinchor jéem a bëri gars yi ci yenn gox yi mais Sénégal fépp fépp fépp fépp fépp Yewwi Askan Wi Yewwi ñëpp non yàlla main divine quoi donc yàlla nañu yàlla gën a jàppale si bii ñëm ci législatif yi ndimbal na fekk loxol borom sabablu nañ mais yàlla tamit may nañu jàppale nañu parce que si yoonu dëgg la ñu ne quoi parce que il faut ñu libérer suñu gi ñu am ni bett na leen bett na leen trop parce que tey jii donc si laay duggee gis Macky Sall muy wax ci affaire euh, affaire góor jigéen yi mu ciy wax tu vois mu ne Macky Sall tey jii moom dafa yaakaar ne moom dafa yaakaar ne euh, góor affaire loi góor jigéen moo ko daaneel wala dara Macky a nit ñi ñoo doyal les gens les gens en ont marre de vous gars yi ñoo doyal ci yow Macky Sall du ay loi góor jigéen naan ay di ko campagne wala affaire yi Sénégalais yi ñoo doyal Macky Sall les Sénégalais sont tellement fatigués dañu sonn message boobu lañ la lancé mais yow malheureusement. ñu lay jéem a indil ay affaire nga naan noo gagné naa quatre vingt pour cent coalition bi moo gagné fii musuma musuma gagné mm, euh, kii Tëngéej PDS moo fa nekkoon gagné moon Dakar Dakar kii moo ko yoroon ah, Khalifa Sall ah, kii moo ko yoroon nu sax di wax ay waxi ne mais Macky Sall région yooyu gagné woon mais da bëgg gagné c'était pas acquis mais yaakaar nga ni boo def say affaire dóor nii kii da ngay kii yooyu noonu boo sañoon tey ji nga jëlaat Tëngéej récupérer Thiès ah récupérer Ziguinchor ne en bal defe ne boobu nga ko récupérer APR gën a kii bu nga xam ne nga am ay nag demoon nga pour récupérer loolu noonu gars nag jël la yoroon gars yi téye la ñu yoroon ba pare jëlaale yeneen na yoroon nga war a xam ne nag Macky Sall gars yi doyoon nañ ci yow donc boo fi toogee day gën a ñaaw te malheureusement ñi la entouré ñi la entouré duñ wax dëgg muy gars yi xam dañu def campagne dañuy ñëw parce que Macky Sall léegi gars yi ñoom dañoo dañu dañu mën a fen nag dañuy ñëw naan non monsieur le président dem naa fële Linguère meeting ba mën a fa toog c'est plié Diouf Sarr ñoom ne c'est plié parce que foofu ñoom li ñu lay wax gëmuñu ko parce que ñoom seen seen seen seen i poste la ñuy défendre Macky Sall boo daan woon suba suba suba suba gars yi daw bàyyi gëmuñu la sax seen i seen i dañuy fen di la fekk palais lay fen mais le peuple t'a vomi

cette défaite elle est inexplicable mënu wax ne man fii laa nii parce que da nga naagu woon parce que défaite bi sóoroo comme Balla Gaye bombardier dafa nga boo waajee dóor ko nii daana nga dem fekk fa xeeru da nga naagu te ku naagu daagu il faut respecter da ngeen Sonko da ngeen ko war a respecter respecter leen Sonko parce que jox leen woon cër yeewi askan wi parce que yaakaar nga avec boobu trois milliards boo leen demee dafa affaire nii rek

sikki ma la ne sikki Sénégal ma lakkandoo sikki ma lakkandoo la fi fay métti donc monsieur le président xoolaatal sa bopp xoolaatal sa donc bul jéem a jël affaire góor jigéen nii bu subaa xam ñoo ñooy recevoir bu subaa tamit xam naa ngay jéem quelque kii activiste wala nga jéem suba nga recevoir at enseignants yi ne parce que ku fa ni moom ku mer rek ku mer moom occasion la demal Macky Sall lay parce que jéem a jubóog ñëpp parce que défaite te say si ñi ko wër naan ay expert en communication stratégie naan kaan non parce que tey jii man ma xëy sax naan ay man bi kay tëngeej mosuma koo gagné kii ne woon mais da li nga yoroon muy signal fort mu tey jii affaire bi moom ah, mi ngi phase terminale quoi cancer bi mi ngi mi dem yaa ngi koy topp muy jógee si tànk yi di yéeg si ndigal yi bi mi ngi jëm bi bu dee mooy présidentiel donc bàyyil Sénégalais ñoo sonu Sénégalais dañoo sonn Macky Sall les gens sont tellement fatigués dañu sonn amuñu benn espoir ils ne savent pas où donner la tête nga agrippé aussi pouvoir di wut entre de caïman yoo xam ne seen bopp rek la leen tax a jóg lépp ñu daaloon ni nga daaloon kii rek moo ne moo ñëwaat ne ah, l'histoire l'histoire defe ne moo fi ne ay Souleymane Ndéné ay fas ñu def ay benn camionnette teg sa ñetti baaful nga dem mais après yow la ñu teg tey jii dafa rus dugg ñu dem ba jël ay xaalim sàmba teg leen Eh, ay Xaadim Samba ay ay Ahmed ay Ndoye Ban parce que mooy yow yaa dëkk bi amatuñu kii quoi voté luñu personne yooyu ñu voté quoi ku ñu fa mënoon teg day jàll donc monsieur le président xoolaatal sa taxawaay ci ci ci ci réew mi tu mandat moom bu la neexee nga def parce que jox la message mais xam ba léegi ak gars la wër les experts en politique xaw science po classe si xërim seg gi ak ñuy analyse ñu defee naan communication la ci a fay si côté homosexuel waroon waxee nii Casamance tamit ci yére que nii def Hmm? demal bala may jot sa dee day gën a ñaaw jël bi day gën a ñaaw lu bëri bi yaram bi di gën a dem euh, guddi gi dem yaram bi gën a tàng lu affaire yi gën a dem te balaa 2024 di nga jotaat yeneen signes yu gën a metti sama gars yi loolu amoon lu may ni touriste bi dama ko yërëm mi tey jii il a passé des nuits blanches ñu naan man naka la man sénégalais yi nii lañu ma bañee mais am na ay fenkat yu koy wër di ko wax naaka monsieur le président non lii ngay def il faut rectifier le tir on a gagné quelques communes yi ñu perte mosuñu ngoon ko gagné affaire noonu quoi mais da bëggoon nga l'opposition à la sa plus grande xaw ma expression ak affaire noonu quoi mais tu as tu as envie de l'opposition à la plus grande euh, expression mais le peuple et le peuple tu en fais quoi hmm, c'est le peuple qui a parlé te peuple bu mu waxee dafa bett sax ay Barthélemy Barth ñëpp l'expression du peuple boobu nga fàtte dafa bett ñëpp ñi ñi nga jàpp ay mille francs leen ko sànni comme ay cox leen jaay affaire leen ci fii di affaire ñooñu ñoo ñooy wax ñoo yi mooy ci temps su ma dee aju nag dama dama content bëggee sama gars yi maa ngi bëggee waa Pastef yëpp di bëggee gars yi suñu maire ngeen job nag da fexe ba wane lu tax ñu wóolu la bañ a fi di jaay suuf bañ a teg gàcce tu vois joob leen à l'image de Sonko parce que Sonko moo woote transparence wu ak nekkal askan bi looloo tax ñu teg leen donc travailler à l'image de Sonko coalition bi ngeen défendre kii bi quoi projet bi quoi parce que loolu moo tax gars yi leen bu sama gars